am mbégte ci invitation bi euh, ci yo sen yo mbolo TV pour euh, wax ci biiru ekbu Renaissance sport de Yoff waaw waaw loolu daal ñu ngi fi ñew nak en tant que trésorier général dégo ci ak le président démb bi mako ci siyaas ak euh, le vice président ak ah, amna quelques membres xam tamit wax naa leen que ne dañu invité RS kii Yoff Mbollo tey pour euh, wax si kiw RS Yoff tey à bon man dëgg maa xaw a tardé parce que dafa am ay cours yu ma defe woon moo tax ñu yéex a commencé tam ok waaw Tafsir ñu euh, lay dalal jàmm euh, yow yaay le trésorier général bu équipe bu RS waaw bi passé nag dañ def assemblée général boo xamante ne ni muy le bureau sortant seen mandaa dafa jeex waaw ñu def bilan bi ñu paree ñëpp dañu yaakaaroon nañ bi ressortant am ñoom dañuy jël équipe bi teg ko ci loxoy Yoff bi nga xam te ne moom moo leen ko dénkoon fekkee dafa am ay demandeur ñu jox leen fekkee kenn demandé wul ñoom bu fekkee dañu bëgg ñu reconduire leen ñu joxaat leen mais gis nañ loolu amu fa tënk nañ fa wax nañ fa après ñu jàpp benn journée de réflexion la moo waral loolu. waaw salaamaaleykum Mat euh, jërëjëf ci question bi. euh, à demande d'éclaircissement par rapport à déroulement assemblée générale de bi amone euh, cœur apexi def nañ ko assemblée générale bu renaissance sportive de yoff bon comme niñ ko waxe nak assemblée générale dafa am nu muy teudé normalement c'est euh, rapport moral d'activité bu mandat bi passé buñ paré rapport moral d'activité bu mandat bi passé nous un rapport financier le mandat bi passé nous ñu un rapport euh, financier le mandat passé bu ñu paree ñu war a defaat euh, élection comité directeur un mandat bi jeex na instant boobu équipe amatu fa mhm. normalement d'ailleurs le mandat comité directeur bu mhm. bon ce qui s'est passé si assemblée générale bi moins lors des débats yaakaar naa yow yaa nga foon woon. Mhm. waa yow yi ñuy seetaan bon bari na ñu fa newoon euh, malheureusement télé bi newu foon ñi nekk seen kër peut-être ko mën a juger. Mhm. mais euh, nit ñi si boppam par rapport ak intervention yi yaakaar naa liñ fa gën a dégg ñu si bari mooy que ne ni ñu gisee muy doxe ni gisee équipe bi di ko doxe ah ni déroulement assemblée générale bi ñi si lañ wax ne li il va falloir ñu def ab journée de réflexion je ne pense pas que euh, c'est le comité d'auteur sortant que je propose. Mm-hmm. parce que vous, l'Assemblée générale bi moi qui décide. L'Assemblée mm-hmm. assemblée générale moi, nous. Mm-hmm. mais le comité d'auteur sortant moi, l'organisateur, instance organisateur organisatrice de l'assemblée générale parce que l'assemblée générale par exemple euh, Baye Ali mënul ñëw L'Assemblée générale jour temps comité directeur moi, parce que je def rapport moi. présenter moo naan jour temps c'est le comité directeur mm-hmm. donc loolu moo tax bii comité directeur dafay assemblée générale defa rapport am ba pare euh, ñu ne dañuy def euh, euh, journée de réflexion journée de réflexion bi yaakaar naa assemblée générale moo ngi jëlaat tegaat ko si loxo comité directeur mm-hmm. donc loolu moo waral ñu ne nañ préparer benn journée de réflexion bon d'ailleurs sax jàpp nañ ko dimanche prochain le mm-hmm. quinze kër APEX incha allah waaw dafa naa li nga wax leer na mais man dama laaj dama jàpp ni est-ce que journée de réflexion boobu warul woon a mën a jiitu avant ñu def assemblée générale bi nga xam ni bu ñu toogee comme instance yi nga xam ni ñoom ñoo fi nekk ñun ñëpp ñu toogee ba xool ni dëgg-dëgg football bi ni nga xam te ni moom moo ko teree dem lii la ñu waxtaan ci bu ko defee assemblée général bu ñëwee rek dañuy mën a conclure lan moo tax journée de réflexion boobu jiituwul quoi comme ni ko nit ñi di demander. Euh, waaw. Euh, wax nga dëgg problème de procédure la ñaare mën a ne zone réflexion jiitu wala zone réflexion mujje parce que mais dafa euh, am fu mbir di toll par exemple loo def ñu ne la lan moo tax nga def mhm. parce que yaakaar naa depuis championnat bi jeex ñëpp li doon wax mooy na assemblée générale am na ma assemblée générale am man en tant que trésorier de ma part personnelle Euh, yaakaar naa sur le plan financier au jour au jour laa doon def samay compte mhm. bi championnat bi jeexee le lendemain manoon naa teg ab rapport financier mais équipe du rapport financier rek yaa la nu mu tudd sax rapport moral d' activité mooy lii nga def lépp si année mhm. te vraiment euh, li si gën a difficile mooy dina sa am ñu nga xamante ni def nga ko si année bi boo parax paraxee sa assemblée générale man nga ko fàtte mhm. mu niru ak soofantal wala peut-être nit ko la jappalé lu xamné sax du du jappalé financièrement mhm. mais matériellement wala physiquement mhm. ñu jox wala moralement yoy yep dafa don loo xam dafa wara dem feeñ sa rapport moral d'activité mhm. ah yi nga def ta waro ka def ah yi nga war def yi nga wara def ta defo ko yooyu yëpp dafa feeñ sa dafa war a sa rapport d'activité moo tax dafa don loo xamante il faut nga jël sa temps jël recul euh sa championnat jeex nga jël euh, recul ap 2 semaines wala 1 mois non noppalu xoolaat say état say état uh, li nga def ci année bi parce que chaque jour normalement un bon dirigeant chaque jour lo def war nga ko am foko bin mhm. nga jël lepp nag door ko def au propre pour man ko présenter ñin mhm. lolu motax euh, rapport bi di démé non mhm. bon euh mais nag euh, biñ euh, biñ paré ci loolu ku si melni waxna wax naa ko si assemblée générale ya nga ku si melni bay bi na ma non seede amna ay nit yoo xamna man ma ngi leen contact sur comme problème bi nga wax entre lan moy jitu mais Euh, des fois comme ni nga wax ni boo ne comme kii bi mooy jiitu euh, nu mu tudd sax journée de réflexion bi mhm. ku négatif comme tafsir man na ñëw ne a ah, kii de li tax mu jiite journée de réflexion bi day baax pour nu mu fi tooge mhm. boo ne assemblée générale mooy jiitu chaque jour daal loo wax am na mhm. leneen lu ñu la mën a tege parce que amul fenn fu ñu teg textuellement que ne lii mooy jiitu lii toppas loolu moo tax bon comme dëkk équipe bi dëkk bi la da nga xool demande bi mu gën a bare ah lii gën a légitime parce que journée de bi kenn forcéral ab assemblée générale moo la ko mën a sant mm-hmm. mais yow mënoo jógee sa mandat jeex bon sa mandat jeex dafa ko rapport mm-hmm. nga nga doon oote journée de réflexion par exemple mm-hmm. mën nañ la wax yow si ban ban nga teg pour oote journée de réflexion instant di ko oote parce que sa mandat jéem na championnat na ab euh, ay rapport lañ si seeqa yow léegi nag fi ñu am ñi ñëw si assemblée générale bi gis ne équipe bi journée de moo ko mën a changé am ñu ne si euh, bureau sorna bi gis ne loolu moo ko mën a changé pour man foofu moo gën a légitime si yow nga am droit na yaay organiser journée réflexion mhm. ma si suma xelaat daal noonu laa mhm. noonu laa gisee ne mhm. mooy gën a kii bien que ne nag reconnaissant que journée réflexion am ba pare nga def assemblée générale peut-être même rapport nga defaat sa bureau wala def yéen mooy gën consistant pour liggéey bi stop loolu moom mooy gën a constant mais toujours mooy problème de légitimité kan moko ko war organiser wala kan moko ko war organiser. Mhm. motax vraiment li gën moy nga oote assemblée générale ñëpp ñew tok bu wa si ngay door am mhm. légitimité pour organiser lool da mhm. defe na loolu leer na euh, beneen bi ñu siy tekk bi ñu si sax lay wax moy hmm. la motax assemblée générale ñu japp ko ñaar yoon pousco ko journée de réflexion bi aussi timit japp nañ ko pousco la motax ñuy pousse à chaque fois buñ jappé rek ñu repousser date bi lan mo waral loolu. waaw waaw waaw foofu wax nga dëgg assemblée générale bi yaakaar naa jàpp nañ ko ñaari dat ñaari yoon troisième fois lañ ko doo tenir comme ni ma la waxee nee naa la depuis championnat bi jeex presque les états étaient normal mën nañ ko defar mais comme ni ma la waxee c'est-à-dire assemblée générale chaque fois yow mi organiser da nga naan par exemple man nii laa nga xelaati mais comme dafa doon benn équipe populaire bu xamante ne par exemple amul ñu identifier que ne ñii ñooy membre RSO lu dul la population yoffaas mm-hmm. boo dëkkee yof rek sa nga bokk mm-hmm. donc pour organiser assemblée générale il va falloir nga ne par exemple man mii ko war a organiser muy comité directeur nii laa koy organiser mm-hmm. par quartier parce que lu ne soulever nga mais loolu lépp il va falloir am parce que yow faa bi nes terrain bi yofa bi ne kërëm yofa bi fi toxu démb yofa bi xam ne mu ngi mu ngi yof mais ñu ngi ko affecté casement wala ñu ngi ko affecté fan si la bokk donc bien que ne yow comme directeur mais nan ngay définir assemblée générale mooy membre assemblée générale bi si loolu lañ noonu di si liggéey te peut-être ku si newul mën na la jaaxal mais boo si nekkee di nga xam ne c'est une chose très difficile parce que yow yaa yor mais yaa ñi yorul yéen si yem donc ni ngay choisir ndax aale mën na fa ñëw wala mën na fa ñëw mm-hmm. am na nooy defee rek ba na nga doon defar mais mën na jur ab yàq loolu moo waral ñu jëkk ñu ñu am problème boobu mm-hmm. beneen deuxième bi euh, problème la au niveau de salle bi mm-hmm. parce que bon biñ sonnee ba def consensus ba ne nii la ñu tëral assemblée générale bi par malheur euh, dañ defar suñuy convocation pare joxe ko bon def ko si whatsapp facebook te xoolaguñu euh, euh, nu mu tudd disponible disponible de salle bi bon malheureusement jour boobu salle bi n'était pas disponible mhm. def nañ tous les moyens bon waxtaan ak APEXI mais tamit ñoom seen kaddu jiitu woon na leen mhm. jiitu woon na leen pare mhm. mën ñu ko jël si kii nga ko jox jox ñu ko après ñun ñu ne si lañ ne nañ puusaat si lañ ko puusaat nag dernière bi ñu teel a jël bon si lañ def assemblée générale ko euh, journée de réflexion bi kii di journée de réflexion du travail préparatoire. Mm-hmm. parce que à jeune réflexion mooy fu bëgg a jëm. Mm-hmm. war nga defar sa terme de référence. Mm-hmm. xam par exemple lan lan si yan pas la équipe bi équipe bi nga bëgg équipe bi tegu. journée réflexion bi d' après assemblée ni mu tëddee. normalement comité directeur ñoo ko war a porté mais nag directeur ñoom kese bu ne ñoo koy porté. te ñuy nax seen bopp te dañuy indi bopp indi seen bopp problème. Hmm. parce que y a des personnes ressources ne si dëkk bi. il va falloir nga def say terme référence. Hmm. jox ko ay hmm. ñooñu saytul la ka. par exemple côté bii xelaat nañ ne boo si liggéeyoon na baax côté boo leen si gën côté boo leen si gën la te même terme de référence yooyu yi ñu defar pare. ba joxe ka con jox ka pour pour journée réflexion bi. ce n'est pas que ne noonu la équipe bi doxee. ñi ñëw journée réflexion bi ñooñu dañ leen yokkal la si mën na ñëw tam wàññi la si mhm. peut-être mën nga si def bu xam ne mhm. peut-être baax na si sa mhm. mais sur la pratique du dem nga dem foofu am am aale mu ñëw wala keneen ne la bii kat ni ngeen ko xeraate baax na mais élaboration bi manul ne wala dañuy tardé ñu dindi ko man nga dem tamit am aale wala a ñëw indi la bu nga xamante ne xelaatoo ko woon nga xool xam ne moom moo gën a yenu maanaam pour équipe bi dem parce que lépp ay xalaat la rek lépp si lépp lépp waaw c'est dans le but que ñu gën a dem si kanam. Mm-hmm. donc mu doon du doon mu doon travail boo xam ne peut-être boo ko defarul nii yow da ngay naan lii yomb na quoi parce que bu ñëwee rek war na sept mm-hmm. bon sur le plan financier sur le plan nang ordinaire sur le plan naang sur le plan nangam man nga xalaat ne peut am tafsir moo tëdd këram. Mm-hmm. xalaat nii bind. mais ab processus la ñaan lii dañ ko wàññi lii dañ ko dindi lii dañ ko wàññi. ba am benn quelques points xam ne teg nañ ko ne lii war nañ si man a waxtaan. Mm-hmm. mais lépp boo demee yow da nga koy proposer ñi fa ne ñoom nag ku si ne wax ndax loolu mën na doxal équipe bi. Mm-hmm. ah laneen lu ñu si man a yokkal lu ñu si mën a wàññi ñu tënk ko pour que ne lii nii xelaat nañ ne buñ si jaaree fi ñu bëgg équipe bi dem fa na fa tegu. Mm-hmm. loolu moo tax du lu xamante ne euh, kii nu mu tudd sax. du loo xam ne mën nga ko ñëw rek organiser ko si une semaine. wala bi ñu nee assemblée générale loolu la ñu waxoon dañ bi ñu demee sur terrain c'est la pratique ba bind ba pare ñun au notre niveau rek di nga am question yo xamantane par exemple ni ma gissé ah ni ala gissé du non nga demaat ci personne ressource ni mu gissé du non té comme que mbir mbiru ñëpp la da ngay fexé def synthèse ab gisin yi man peut être amna na suma ñaar gissé ni ñuy téggi bayyi suma ben kanen yok kanen yok kanen yok bañ xamné li la euh, ñi ngi ni euh lolu la ñu def ko bon beneen bi ma si gën a leeral rek mooy que ne personne ressource si lu mel ni association sportive dafa difficile. Mhm. parce que bu doon association am par exemple dañ ne ñi ñooy membre yi. Mhm. da nga mën a ñëw ne ñi ñooy personne ressource yi. Mhm. mais mën nga ñëw par exemple nga xalaat sa personne ressource am aale euh, Massamba ne la moo tax nga xalaat aale te xalaatoo ko. te bon peut-être que def na suba lu aale deful. wala peut-être que xam na lu mu xamul. mais euh, dañuy damay faral di wax ni toujours si gars yi. man ne soxla Yoff doole Yoff xajul soxla Yoff. li fi li fi nek lepp xajul ci liñ soxla mhm. donc liñ man rek moy ñi sam xel daj nga jël leen ñeneen ñi sam xel daj utam ku ko sam xel daj mu proposer le ga mhm. ñu and parce que liñu defat du du yëf ken yëfu ñëpp la daal ci mhm. fofu dal lañ tollu ba am ay quelques points yu ñu tënkoon pour le 15 ñu jim ci waxtaan incha inshallah wa def na loolu leer na euh, euh, yeen euh, rapport ngeen am wala yeen relation sax lay wax hmm. entre yeen ak RAFI mu association bo fi nek non des anciens footballeurs avec APEXI la zone 6 avec l'école de football parce que vous avez un instance qui relation comme les mm-hmm. euh, mm-hmm. voilà comme Ninko parce que renaissance sportive de Yoff la mm-hmm. donc génnul Yoff euh, yo Yoff la peut-être que. Euh, waxoon nañ que assemblée générale ba le paas pas bii ba paas que est-ce que sax mën nañu dans cinq ans dans dans deux ans. Mhm. ñëpp daje basket lépp lépp lépp. Mhm. mais bi ñu xalaatee dañ comme que déjà comme par exemple nga jël écurie y'a y'a deux écuries basket ki euh, nu mu tudd sax am na quelques kii yu nga xam ne bien que ne presque lépp lépp xaw na naa si léegi. Mhm. rugby il faut ku nekk travail de son côté. ba nga xam ne dans trois ans quatre ans. dana mën a def la grande ensemble. bon si vous lay dugal cadre lu melni association des encadreurs mhm. ak association euh nous des anciens footballeurs parce que yooyu yep mhm. dafa don lo xamantene si même es yele yële la mhm. mais même espoir. la euh, mais euh, les si incompréhension moy walu par exemple si encadrement petite catégorie parce que euh, association Rafi voilà mm-hmm. association voilà les écoles de football mm-hmm. ay école de football là, peut-être que ban relation la nga war a am mm-hmm. normalement euh, ay centre de centre de de détection voilà d'approvisionnement yoo xamante ne par exemple RSO wala mën a jële sa petite catégorie ay cadet voilà junior wala bés bu ñu demee bañ na RSO am na centre de formation hmm. wala parce que lu ne mën na nekk. waaw bu ñu demee ba ne ba loolu yëpp am. Hmm. peut-être que mën na nekk benn cadre bu nga xamante ne mën na liggéey ensemble. Hmm. mais pour à à l'instant nii nii nii li loolu benn relation moo fi am parce que depuis des années euh, petite catégorie cadette wala même si entraîneur yi sax. 80 pour cent yi si foofu la ñuy jóg si association des encadreurs. foofu la entraîneur RCF du jóge mhm. entraîneur petite catégorie senior mhm. jóge mhm. wala les adjoints parce que man bokk si li ma fàttaliku bi ma fi newee ba léegi masul am benn année bu a xamante ne même bu dul entraîneur principal au moins am na am adjoint adjoint nga xamante ne si foofu lañ jóge mais nag du relation formelle bu xam ne biddal nañ ko ne lii la ñuy def lii la ñuy def mais ku si ne xam nga lan nga war a mën a jëriñ sa morom euh, li ma siy profité nag mooy y a des ay chantiers yu ñu war def pour gën a améliorer les relations. Hmm. parce que ñoo bokk même sport bi. waaw muy football. léegi nag si yenn base. Hmm. ak si wan yoon lañ koy ki peut-être xaj na si journée réflexion bi. Hmm. xaj na tamit si vie courante bi nan la ñuy doxal suñu activité. par exemple o euh, kii nu mu tudd sax la petite o ñi yor la petite catégorie. les mooy les les encadreurs ñi yor ay académie ñi yor école football. xool nan ngay liggéey ñoom. parce que tamit. ku si ne sa liggéey dafa am fu muy am. waaw parce que boo nee école de football nga ne par exemple yaa ngi am a 14 ans 15 ans. Mhm. donc normalement doo ne da ngay jàngalee ba mu am 15 ans. Mhm. mu arrêté man mu arrêté dafa am fu mu jëm. waaw kii fi ñu jëm tamit. Mhm. moom mënul tëdd ne. ñii su ma yoon si ñoom. newul si ñoom encadreur newul si académie ba ñooñu am ku egg si âge tamit nga bëgg leen a ñooñu bari ñëw si yow tam day day day day jafe. Hmm. donc c' est un chantier boo xamante ne yi nga tudd noonu yëpp. waaw ñoom ku si nekk. Hmm. am na travail boo waay travail boo war def. pour l' intérêt commun du football yoo fa. waaw am na solo. parce que boo xoolee ku mel ni Rafi am na hmm. académie bu mu taxawal. Euh, def na cérémonie de lancement pour école de football am. ñoom boo xoolee seen liggéey si suuf la nekk. yéen waa RS Yoff yéen a yor l' équipe l' léegi est ce que. ngeen collaborer ak euh, ki nga xam te ne moom mooy Rafi. Mhm. comme école de football yi ñoom taxawluñu loolu ba Rafi ñëw taxawal ko seen kaw. Mhm. est-ce que yéen doon collaborer ak ñoom comme li ñu toog pendant cinq ans yoo xam te ne amuñu petite catégorie. Mhm. est liggéey bi du gën a gaaw foofu wala du gën a yomb. waaw mooy mooy li ma lay wax xam nga collaborer am na loo xamante ni c'est une obligation. par exemple kii bëgg a togg ceeb. na moom xam naa waa Seckeen dinañ ma kal mhm. ki bëgg a togg ceeb du ne bu ne du dem marché. Mhm. yaakaar naa ne man manul togg. Mhm. kii dem marché tam mu ne bu ne képp kuy dugg kuy togg ceeb mu dugg si marché bi. yaakaar naa ne du jaay. waaw donc dafa am na xam ne mooy li ma la. ñoom associ association yëpp muy Rafi. muy en muy les encadreurs. muy RS Yoff. ku si ne bu ku nekk bu bu bu bu ku si ne ku si deful li nga war a def. par exemple amul ku sëb liggéey di mat. par exemple kii formé. buy formé te préparé wul kii muy formé fu mu jëm. Mhm. liggéey matul. Mhm. kii ne si kaw par exemple te préparé wul kiy formé si suuf. Mhm. ab liggéeyam du mat du mat donc c' est un travail bu nga xamante ne. ab soxlante euh, soxlaante la. donc dafa doon euh, une obligation. waaw ñu liggéey ensemble. léegi nag liggéey bi mooy les termes. les termes mooy nan lañ mën a liggéey. nan lañ mën a liggéey ndax partenariat la. Mm-hmm. ndax par exemple euh, nu mu ndax association. Mm-hmm. ndax sous-traitance parce que bon ce sont des mots comme ça. Mm-hmm. parce que géey boo gis mooy li ma la la euh, depuis des années am na lu ñu seex ak les encadreurs. mais ce n' est pas écrit noir sur blanc. est ce que tamit dañuy liggéey loo xam ne c' est écrit dañuy ne dañuy toog nekk ensemble. parce que euh, man nga bokk. RSO. te doo bokk rafi man nga bokk RSO. te doo bokk si association des encadreurs mais manoo bokk rafi te mhm. bokk RSO mhm. manoo bokk si euh, association des encadreurs te bokkuloo yof mhm. te bokkuloo RSO mais nag nga participer ax ah, nga ba parce que man bu mën a RSO du ma ne comme ce n'est pas le comité bu mën a RSO c'est donc loo mën a yor nga ne si yof rek yow si yof nga bokk donc dafa doon loo xamante ne pour man ay pas yi ñu war def la pour xool ne par exemple man kii lii laa ko soxlaa moom lii la ma soxlaa. Mhm. ñu xool na nag mën a travailler ensemble. comme mhm. li ma wax rek mhm. parce que complémentarité. laa fa gis ko donc on est obligé de travailler ensemble. xool nag si yan base lañ koy teg quoi. d' accord kon loolu mën nañ ko xaar si journée de réflexion bi di ñëw nii parce que lu ñu mën a wax tamit élection moo nekk si boppam bi. moom moo ko fi ñëpp. est ce que du jotul tey ji mu tàllal loxo ñëpp pour liggéey ak ñoom. man côté boobu ma si dégg. Mhm. day xaw a mel ni par exemple RSO dafa doon lu tëju. Mhm. te euh, man bokk peut-être que avant man. Mhm. mais je pense que def naa au moins plus de huit ans. RSO huit ans yoo xam ne c'est je suis actif. bien que ne newoon naa ay adjoint secrétaire général. Ah. nekkoon naa ménager général. Euh, masuma gis par exemple si RSO ñu ne nañ liggéey diw bàyyi diw. donc peut-être ab tëju amu fi. Ah. Euh, dafa doon lu xamante ne. par exemple lépp yokk mhm. amul fenn fu ne par exemple RSO boo bokkee si association nangam wala booy liggéey nangam mhm. bokkuloo si RSO mhm. amul ku mës a ñëw par exemple RSO ne da ngay bëgg bokk comme directeur ñu laaj ban association nga bokka wala fan ngay liggéey wala ban quartier nga dëkk masul am si RSO donc pour man les portes bon son grandement ouvert tëj tëj tëj nañ ko waaw tëj masul masul tëju parce que buñu ne nañ ko day melni lu lu waaw day melni luñ luñ hmm parce que bon man man damay wax man suma hmm bi may ñew RSO bon mahet yalla na yalla yok leer ya mo ne mo ah saay man kat RSO dañ manké administratif parce que do ñew japp lañ hmm ne ko peut être ma ngi jangi mais comme walu licence yoy comme ma ngi Brésilien lo leen soxla man na dem déposer leen hmm parce que non la duggee toog naa ans xamna damay dem rek déposer licence ñëwaat. Mhm. peut-être match ka dama ñëw seetaan mais même mhm. match sañoon seetaan da doon jafe si man. Mhm. donc pour man tamit comité directeur la tout un yow fa. am na droit ñëw ne par exemple dama bëgg a bokk directeur dama bëgg a liggéey. ñu xool nag par rapport ak assemblée générale lan lay parce que assemblée générale par exemple buy fay buy fal tafsir. duñ par exemple parce que tafsir fii la dëkk wala parce que tafsir lii côté bi man na si yaakaar naa ne assemblée générale bu ñu fa doon fal entraîneur mhm. ma tàllal bon je ne pense pas waa yof nelaw ba di ma fal parce que yàgg naa si équipe bu mhm. Mbengen. Mhm. seen tableau classement benn noonu laa ko mas a gis tab carré laa doon jox Vincent gis ñu bind tur góol donc exclusivement je ne suis pas je ne suis pas équipé donc pour man rek bon les portes sont ouvertes ku nekk war nga mën a ñëw ne si équipe bi man lii laa si mën a liggéey lii laa si bëgg a liggéey par rapport à sa profil par rapport à say capacité mhm. ñu xam ne lii nii yow yaa ko man mhm. ñu jox la ko mhm. wala peut ñu ne jox nañ ko aale mais aale soxla na ko jàppale ñu ànd jàppale ko liggéey daal waaw léegi est-ce que pour tëj foofu rek est-ce que mën nañ ko xaar si journée de réflexion bii di ñëw ni muy le 15 décembre est-ce que mën nañ fa xaar loolu pour RSO tàllal loxo ñi nga xam te ne ñoom la war a tàllal loxo ñëpp pour liggéey ak ñoom ndax loolu mën nañ ko fa xaar si journée de réflexion bii di ñëw peut-être dañ bokkul conception. Mm-hmm. peut-être man RSE man Yoff laa ko tudde mm-hmm. donc man bu ñu ne tàllal loxo rek. Mm-hmm. a man moo bi laa laa laa ma de. de conception la. mooy li ma wax luy doxal football Yoff. par exemple mën nañ dem ba foofu ñu bañ a wax si ne non lii dafa doon ab impératif pour. pour pour pour pour pour football Yoff pour football Yoff développe. Mm-hmm. par exemple nañ dem seeti diw. Mm-hmm. peut-être am tafsir moo xam ne mu ngi woon Ziguinchor. Mm-hmm. daaw dem na daaw bi ñu demee Ziguinchor jàppal nañu. Oh. na est-ce que duñ ko oo mun nekk par exemple. président des ressortissants Yofa. Mhm. parce que saa yu ñu dem sa région dañu soxla ay Yofa di laajte ay contact mhm. pour ku ñuy jàppale ku ñuy toggal ku ñuy nangam ku ñuy mhm. héberger ku lijjën hébergement yooyu. loolu ñun mën nañ comité de mën nañ ko bañ a xalaat. mais daaw bi ñu dem si gànnaaw aale mu dem si xaaram aale. ñëw journée de aale wax. mais amul ko amul ko pour man équipe noonu lay doxee. parce que da gis liy avancé aale mën na ñëw daaw accompagner la bu doon yéeg nañ sa yéeg nañ. Mhm. mais nangam gis naa ne def ngeen ko te baaxul. Mhm. en bon dirigeant en bon personne ñu xoolaat ñun ñu xam ne loolu noonu baaxul. Mhm. mais peut-être que nga ko bañ a seetlu mu nekk habitude boo xam ne da nga ko daa bari ñu xam ne bu ñu duggee RSO par rapport ak seen liggéey seen ASC moo tax. parce que amul kenn ko xam ne dañ lay fekk par exemple nekk leader si silanen, mhm. ñu ne la kaay dugg RSO mhm. duñ la fekk par exemple nga nekk leader si canapes bien que ne sportif la mhm. ñu ne la kaay jàppale ñu RSO dañ lay fekk soit nga ne sab ASC wala nga ne comme ni nga wax noonu Rafi ñu xam ne lii ngay liggéey ni par rapport ak li nga soxlaa man euh, war na mën a nekk nga ne ab encadreur ñu ne par man nga ñu si encadrement wala même bu dul encadrement si leneen wala nga ne si ASC mën a organiser wala mën a kii si xarañ si utam licence wala am jot wala nangam nang parce que équipe bi lépp lañ soxla dama lay jox benn anecdote rek daaw suñu voyage bi ñoo si bi ñu dem Ziguinchor. Mhm. dernier voyage bi ku semaine bàyyi Ousseynou Diop man dama ko obligé pour mu ñëw. Mhm. parce que tellement que dañu manqué. Mhm. Euh, délégation dafa bu ñëwul délégation dafa nar a bi mu ñëwee dañ woor bi ñuy dem. bi ñuy ñibbisee si bato bi dañ egg si sept mu jubal liggéey jubal fi ñun bi ñu ñëwee dafa jubal fi muy liggéey jee donc buñ nek nekk soxlaaw ñu ay nit. do do do do do comprendre ku neul mhm. si biti nag. Mhm. man nga yaaka ni ñi dañ siis. Mhm. mais yow bi ngay voyage xam nga nek ku jël auto 55 places. def fa 30 personnes. soxla nga ay nit ñu la gungé soxla soxla nga. donc pour man Rafi école de football. ASC supporter supporters yo fa bu xamantene xelaat nga ne lii nii war naa ko mën a liggéey si yow RSO. Mhm. war nga mën a ñëw liggéey ko si RSO. loolu laa gis mhm. waaw. waaw loolu leer na defe naa ne tàllal lañ loxo ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp pour ñu ñëw jàpp si liggéey parce que liggéey bi moom defe naa ni du jeex léegi pour euh, ci saison ren bi si la ñuy dugg incha allahu rabbi waaw pour nga jox ñu juste fekki am nga ko nga jox ñu poul poul bi nga xam te ne fa lañ bokk ak ñaata sorte lañ am ak ñaata lañ war a recevoir. waaw euh, pour euh, saison ren bi. Mhm. comme ni nga ni nga ko waxe bon ñu ngi si poule bu li ñuy ooyee national poule bu difficile bi. Mhm. mooy poule sud. Mhm. moo ëpp ay voyage euh, yaa deux daaw lañ fay door a dugg. année yi passée poule nord lañ doon ne ay maximum Saint-Louis nga doon dem. wala Richard Toll bon foofu moo tane mais poule daaw bi fa lañ nekkaat. bon ñu am ay voyage nag yu yu yu yu yu yu bari. mais euh, par rapport ak ni tableau bu demee bon sportivement xaw na ta tane si ñun. Mhm. xaw na tane si ñun parce que les derniers voyages boo jëlee six six dernières journées yëpp benn yoon nga si dem Thiès. Mhm. nga si bon nga si wal Carrefour peut-être nga dem Tivaouane wala nga dem Mbao mhm. bon six dernières journées yi si presque Dakar. mais première journée bon dañuy commencé à update bi ñox ngor. ñox ngor ñooy joué première journée. deuxième journée. Euh, Ngor moo ñu recevoir première journée deuxième ñu recevoir Lusana toujours a Dakar. Mm-hmm. bu ñu defee Lusana à Dakar troisième journée dañuy dem euh, Ziguinchor. Mm-hmm. jouer ak Zik Inter. Mm-hmm. Euh, Olympique de Ziguinchor. Olympique de Ziguinchor waaw bu ñu paree Olympique de Ziguinchor. ñu ñëwaat recevoir Kaffrine. bu ñu rafa recevoir Kaffrine semaine prochaine semaine bi stoppaat si la ñuy dem Kolda. jouer ak Kolda. Kaffrine Kaolack la. Kaffrine après Kaolack. après Kaolack ok. léegi bu ñu joué bu ñu joué ak Kaffrine. Mhm. cinquième journée ñoon dem Kolda. Mhm. bu ñu joué pépinière de Kolda. bu ñu joué ak pépinière de Kolda sixième journée ñu recevoir Kédougou. Mhm. Euh, Gazelle de Kédougou. septième journée ñu demaat euh, Kaolack. ñoo Saloum. Euh, huitième journée ñu recevoir Kayor Foot. neuvième journée ñu dem war Thiès football wala daan de Thiès. dixième journée ñu recevoir. Cambérène. Mhm. onzième journée res yëgoo recevoir ñu. Mhm. loolu mooy phase aller mhm. donc boo gisee phase aller bi dinañ si dem. Euh, troisième journée Ziguinchor. cinquième journée Kolda. septième journée Saloum. neuvième journée Thiès. muy quatre. sorties ba quatre quatre quatre sorties. quatre sorties yooyu lañ am. benn bi Ziguinchor la benn bi Kolda benn bi Kédougou ñett bu su a benn semaine moo dox seen diggante. ak eh, benn bi Kaolack. Mhm. retour bi mooy xaw a tane si ñun parce que retour bi eh, premier voyage bi bi si gën a sori eh, fële la ñuy jëm moo mais moo gën a sori si kii mooy Kédougou. Mhm. sixième sixième journée bi lay doon quoi parce que na fekk ñu bari retour na àll ba. Mhm. bu ñu jógee foofu non premier kii quatrième journée bi la ñu dem Kaffrine. mooy après après Kaolack. bu ñu jógee Kaffrine door a ñëw fii. door a do recevoir Kolda mhm. sixième kii mhm. retour bi mhm. après door a dem euh, Kédougou Kédougou bu ñu fa joggé nak bon da naka presque euh ki bu neex la euh, programme bu neex la parce que dañuy recevoir Salou. -hmm. dem euh, Tiawon wala Mba football ak Kayor foot yi si des yeb Dakar la soit bu ñu recevoir wala bu ñu recevoir dem quatre journées Dakar la quoi -hmm. mais voyage yoy dal lañ ci am waaw xam nga bu ñu ko xoolee par rapport ak daaw mhm. nag. mel ni ren yokk na ñaar voyage yokk na waaw parce que benn équipe bu dakaar moo wàcc. Mhm. ñaari équipe benn équipe Dakar moo wàcc. Mhm. moo wàcc ñun fi ñu ne. benn équipe bu Kaolack kii yéeg benn équipe bu Kédougou yéeg. équipe bu. Kolda ko équipe bu Kolda yéeg. mu doon ñaar yu ñu yokk. Ah, ah, ci benn dakaar bu wàcc quoi. ok kon loolu bu ñu xoolee xaw na xaw na saf. Euh, parce que financièrement xam naa ne dina xaw a metti ci équipe bi léegi euh, loolu moom dañuy ñaan yàlla mu defal ñu ci sutura bi ñuy tëje nag mooy euh, gars yi ñuy wax naan lu tax entraînement yi di commencer te alors que équipe bi amagul bureau maanaam dara nekk ko fi ñu commencer les entraînements ndax foofu mën nga ñu ci leeral lan moo tax entraînement yi commencer te alors que bureau amagu fi. Hmm. Euh, waaw. dëgg la parce que assemblée général nañ war a def journée de réflexion journée de réflexion war a tardé mais comme ni ma ko waxoon sànq bi may door commencé c'est-à-dire dafa am lu ne kii koy organiser mm-hmm. bon yaakaar naa ñu ngi wax ay général mais af ñu ngi wax entraînement mais avant entraînement mm-hmm. réaffiliation moo jiitu. Mm-hmm. te je pense que ne bu ñu réaffilié woon ba heure bi bañ ne forfait nañ duñ wër dëkkab di ko laaj dañ naan comité directeur lañ koy laaj. Mhm. parce que ñoo waroon réapplier. Mhm. Euh, subvention maire bi bi ñu jox ASC joxaal nañ ko. Mhm. bi koy jox comité directeur lañ ko jox. par le trésorier man mi. ma ànd ak son adjoint. yóbbu ko meg si. bon lu dul génn si lu dul li ñu kiiwee li ñu réapplier. ak fay assurance parce que loo si gis loo si ne gis période la. bon si même volet boobu ak ni ñuy toogee di réunion. préparer comme nous avons waxoon journée de réflexion là que nous instant bii nii pour sàmbanaa normalement le 7 la waroon commencé. Mhm. le 7 euh, décembre. Mhm. mais pour nañ le 7 janvier. Mhm. mais pour ceux qui ba le 19 janvier. c'est fort. Nous, ñun une réunion en bureau nous ne euh, est-ce que ñu toog xaar ba pare. par journée de réflexion le bureau. de euh, la commission sportive. dem uti ay entraîneur entraîneur est-ce que duñ ko pénaliser. Mhm. buñ ko bëggee laaj résultat parce que mën nañu mënoo toog. Mhm. ba mu des un mois une semaine. parce que mhm. euh, ñun boog li ñuy def boo ba léegi mooy chaque fois on apprend de nos erreurs de l'année passée. parce que daaw ñun ñu ne topp équipe bi yëpp phase retour bi boo ko boo jëlee championnat phase retour. ñun ñooy deuxième si phase retour donc préparation bi te ñun ñu si ne woon xam nañ ne. jour yi doo football mujj gi euh, 80 pour cent ñu ngi fi woon depuis le début. Mhm. mais peut-être que gisuñu leen woon wala temps de préparation bu doy waar ba nga xam ne mhm. euh, day xaw a doy waar mhm. léegi si loolu lañ instruire ce n'est même pas le bureau ce n'est même pas le bureau dañ instruire commission sportive ñi fi woon ñu ne leen yéen dem leen ngeen waxtaan ngeen xool nu ngeen ñu propose parce que amoon nañ ay sollicitation ay entraîneurs étrangers yu indi seen i seen i CV seen i yëpp ngeen xool jël entraîneur bu laajee ñu commencé. Mhm. même travail hivernal wala yooyu ñu mhm. commencé que. Mhm. le temps que les pro l' autre l' autre problème administratif mooy journée euh, de réflexion. bureau yooyu ñu doo a réglé. parce que loolu c' est juste pour. bañ a pénaliser la commission sportive. loolu moo tax. ñu wax ñu wax la commission sportive moom mu dem. moom moo dem. dox loolu. ba euh, loolu sotti. après même amoon nañ ay comme ni ma waxee amoon nañ ay mhm. proposition bi mhm. ñu ne par rapport ak li ñu wax muy journée de réflexion mhm. par rapport ak yaatal nañ fexe ba commission sportive bi Yoff Gëpp gis si boppam boo gisee attelage bi ñu bi ñu proposé ñoom ñu d'accord si presque c'est trois à quatre Yoff waa yu nga xamante ne ubbi nañ seen i port monde sportif bu Yoff bépp parce que dañu dañ bëgg daal loo xam ne Yoff gis sa si boppam ñu ne nañ ko proposé. Mhm. ñoom dëkk biñ leen biñ leen kiiwee ba léegi toogaguñu ak ñoom ñu wax ko ak waa yow. Mhm. parce que li tax tooga ñoom parce que nee nañ leen du ñun ñooy comité directeur. Mhm. parce que dafa am fu ñu jëm. dañ bëgg bàyyi loo xam ne bu dee dañuy continuer wala dañuy ànd ak ñu ñëw wala dafa am ñeneen ñu ñëw au moins le travail sportif bañ a dagg moo tax boobu ba léegi biñu leen biñu leen joxee presque comité directeur la ñu en contact beneen bi si am mooy peut-être transport yi ñuy jox étranger xam ne daaw. Mhm. ils étaient tutélaires. ñooñu on est obligé ñun génn xaalis. Mhm. di leen jox transport parce que. Mhm. bëggoo leen a ñàkk te xam nañ seen valeur. donc loolu mooy euh, lii fi am si commission sportive même seen besoin matériel sax euh, biñ ko bindee. jënduñu ko dañ ko téye génn matériel bi fi newoon daaw. ak xool si ñooñu ñooñu fi ne ak commission sportive ñi leen mën a jàppale génn ay polo ay yu ñu dajale. jox ñu commencé ñu commencé parce que loolu lépp. du du du du du si benn objectif lu dul par rapport li ñu daloon daw ba ñu dal parce que chaque année daw jek problème pas ñu am mhm. daw man dama sacrifier chaque jour lu mu dédé dee mu laa liggéey dem entraînement joxe len passe door dem mhm. parce que des fois da nga daan biddanti des fois néwo fi des fois nangam nangam mhm. nga am problème mais parce que lool mo gestion gestion ah lu mu bon bon bon bon bon man nga def benen erreur mais erreur bi nga defoon daaw pour man boko defate da nga am problème loolu motax sur le plan sportif ñu na daal nañ fexe fexe fexe mm-hmm. fexe ba. Mm-hmm. équipe bi moom. Mm-hmm. yeex a commencé kenn du ko wax. après nag ku yor. normalement loolu doo ko doo ko waxati quoi. waaw léegi nag ñu door a xool na ne ñu teel a anticiper les choses loolu am na solo quoi parce que vraiment travail hivernal moom dafa am solo si euh, saison championnat quoi. léegi euh, par rapport ak fii moom xam naa ne duñ tëj émission bi te waxuñu si quoi muy euh, ñi nga xam te ne nii mooy étranger yi fii ñëw mën

ñetti entre deux mu doon ay motivation ça dépend xamu nañ koy tuddee mais loolu est que loolu noonu ren jooju ren jii nii incha allahu rabbi yéen pare ngeen pour loolu noonu même bu dañul sax mu wàññeeku bu baax a baax a baax. Euh, waaw vraiment normalement bu ma laa woon a gën ne sax ma yor fii rapport rapportu daaw bi. Mhm. parce que yaa naan ay treize mille am na benn instant dem na ba vingt mille par mhm. mais loolu yëpp lii ko waral. Euh, peut-être que mooy fii équipe bi tol mhm. te léegi bon ñu ngi naan ay étranger mais comme ni nga ko wax bëggoo ko wax sax. parce que mhm. léegi. Mhm. le football est presque universel. sa euh, fait cinq ans chaque année chaque jour moom laa gars yi maanaam peut-être ñu ngi naan suñu résultat baaxul. mais cinq ans yëpp chaque année presque ñun ñu jour ay suñu jour yi dem. amul benn jour bu jógee RSF dem dem Ligue 2. presque jour yi fi dem équipe Ligue 1 ñoo la di jël. donc matière am na fi. bon par rapport étranger yi nag sérieusement instant bi fii football tool. Mhm. man boog damay wax si seede. Mhm. am na si étranger yu nga xamante ne daaw par exemple résultat yi ñu amam. moo mhm. xelaatoon naa ne ren peut être yeneen équipe dañu ko xëccoog ñun. mais am na ñu nga xam ne peut être euh, biir championnat bi jeexee ba ni championnat bi commencé. même ñi dëkk suma quartier di wax man affaire nawetaan sax mhm. ñoom chaque jour sur les réseaux sociaux mhm. affaire RSO même AG bi ngay wax ne à jour de réflexion mhm. chaque jour fi ngeen toll il faut ñu teel a daa boo gis équipe ni mën naangam donc dafa doon loo xam ne léegi football moo moo moo fu ne la ñuy dem di wër équipe peut-être da dëkk yow équipe jigéen la doo xam valeur am mais gis ñoo xam ne Ziguinchor lañ jóge ñëw fi ay tailleur lañ seen mag bi def tailleur wala nangam naan lañ dëkkal mhm. donc li ñu leen jox yow li ñu leen jox si équipe bi mhm. di nga yow lambaar sa poos wala mhm. jaar àndoon lambaar sa poos a jàppale leen football moo toll foofu baneen bi mooy euh, daawaati jeeg fin saison bi parce que dem naa ba man boobu daaw ma ñëw di yóbbu yóbbu passe directement dem naa ba gars yi li ngi may laaj man suma wàll boobu dafa ma xaw a tiital ma ne bàyyil ma dem vérifier terrain bi si ginnaaw laa mais bi ma compté à ma grande surprise. Mm-hmm. sur les vingt deux jours yi entraîné. Mm-hmm. mais ab góol moo caw laa si gis. Mm-hmm. Euh, Baye Malick. ndax kan ñetti nit laa si gis ñu dëkk yow. deux dix neuf dëkk ñu yow. mu nekkate boobu gars yi dañ wàññi sax li ñuy jox jours pour mën a nekk neuf mille donc foofu pour man appel bi ñuy def rek mooy. Ah. si booy Yoff ñu xam parce que ñii fi jóge dem Ligue 1. muy Kabaay muy euh, Tambidou. muy Mocaw. ñoom ñëpp gisan gisante nañ si nawetaan xam nañ ne ëpp ñu ne ay talent mhm. mais équipe Ligue 1 wala équipe étrangère du fekk benn jour jullukaay ba naa naan kaay ma yóbbu la du fekk benn jour terrain mbeng naan kaay ma yóbbu la loolu wax ko si kaw loolu mhm. il va falloir ñëw si mhm. équipe bi football étranger yi ñuy jël nii ñun xam nañ ne dàqu ñu leen football mais nag kii ñëw ak kii ñëwul mënuñu yem kii bëgg ak kii bëggul mënuñu yem il faut ñu des si fulla football terrain mbengen wala tafes ak mbengen dimanche matin mhm. dajee xam tafsir dóor ko mbagg dem sa yoon mhm. wala dajee xam siyaas yaalik mhm. vraiment loolu du football nañ ñëw championnat ren jii gis newetaani fi mu toll nii ñi fi wax ñu ngi toj ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp mu ne am na ko su footballu championnat parce que ku football 23 mars ne boo ñëwee nawetaan da nga koy toj bu déwénee boo demaatee championnat toj ka équipe bi bu yéegee fa laay xam ne bu yéegul tamit yow nga am loo mën a jox parce que ñii fi génn football yaakaar naa ne bu ñuy wax ab daaxante mhm. ñi ñu daaxante ñu ko un pour cent mhm. par exemple lii nga man la sa man mhm. la kaneen man ñii football nii ñun bi nee xale ñu doon football daaxu ñoo football dañu ko gën a bëgg ñoom it ñii fii ñëw di football muy étranger ak waaye yiy football di prouver daaxu ñoo football ñi tëdd seen kër mais nag affaire du kër ya du jullukaay ba loolu mom dama dama kay prise ni nga xam mhm. waxaat du jullukaay ba ab jour bu bëgg dara pour man waro ne ci top ay match si Kambis parce que 23 match ko ko def vraiment waaw waaw dara na am see tang quoi Sénégal bi waaw mais loolu est-ce que eh, Tafsir eh, dina mon di même bu dañu sax mu wàññeeku quoi parce que buñu xolé financièrement moy di olof yi di wax rek naan kalaa roggante da ngay jotlé parce que bo xolé financièrement xam nga ñun dañuy taba taba comme ni ko ñi di waxé léegi bu ñu bëggee côté transport bi ñu bëgg gàddu loo xam te ne nii gafay équipe bi attanu ko est-ce que loolu tamit laajul ñu ñu xool ci daal naka lañ ko mën a solutionné même bu dañul sax mu wàññeeku bu baax a baax. bon waaw du ma la euh, weddi. Mhm. comme xam nga finance. donc xam naa coono yi si ne. Mhm. Euh, mais da xool instant bii nii yaakaar naa avant ñu de commencé dem place presque. étranger yi wàññi wàññi wàññi nañ si. Mhm. wàññi nañ bi ñu demee place par exemple à part ñii fi daaw am na ñeneen ñu ñëwaat. Mhm. Euh, tey bi ma demee entraînement j'ai compté soixante deux personnes. Mhm. mais ñun dañ ne képp ku dëkk yow. képp ku dëkk yow dañ la wàññ nañ la téye. mais xam nga tamit ki ngay téye te par exemple amul lu leen lié. amul contrat bu leen lié. par exemple championnat c'est vingt trois mars. c'est vingt deux mars peut-être. ak coupe du Sénégal. muy 23 muy 23 loo gën a dem. mu gën a sori. Mm-hmm. Euh, toog ba par exemple nga ne étranger bi parce que dama ko doon jox chaque jour 500 na toog. Mm-hmm. nga toog troisième match. Mm-hmm. su ma rakk bàyyi. dem di football jumaa ju wala dem di football fa ne wala parce que a ñu wala parce que aale wax na ko lu ko naxari. amul lu lu ko liyee ne ah ne. day toog football la par donc kooku bu bàyyee. yow problème ngay am. pour seet daaw. Euh, demee ba digg championnat bi am na benn instant dafa bari mm-hmm. bon je vais mm-hmm. bon comme yàggul si équipe dafa ne est ce que man comme li nga wax parce que dañ bari. Mm-hmm. ma ne ñii ngay wax ne boo moto ñooy punir championnat bi. même même pas deux à nga yaakaaroon booy yëpp. daf si bari ñu nga xamante ne. mentalement fooruñu. mentalement fooruñu. boo leen wul ñu toog seen kër. te loolu du championnat. équipe daaw yaa ngi kii terminé libéraux. Euh, Jaabira. ba ñuy takk tànkam di ko forcer muy football. waaw début latéral la commencé. Mhm. dem na lu mat ay six match yoo xam ne football tul parce que nangu nañ balaa mu jég mooy eggali mooy eggali mooy mooy mooy mooy yegg mooy mooy yeggali libéraux. Mhm. saaxo mi yeggali latéral. waaw début excentré la la football. Mhm. ñetti match ñeenti match. teguwaat si pendant six mat te mu jég excentré latéral yaakaar naa est ce que du ñuy si bokkul si ñuy jóg convoqué. donc. loolu daal mooy li tax ñu ñun ñoo war a ñaax. ñuy boy mhm. assiduité parce que kii tax nga bàyyi kenn. Mhm. da lay leer na moom. Mhm. taxaw na du fi jóg. par exemple ñun bu ñu amoon vingt cinq yoo faa xam ne leer na nañu ne ñii duñ fa jóg. ah commission sportive bu dëgër ak travail bu normal mën nga liggéey lu nga xamante ne peut-être doo soxlaa benn étranger. mais loolu day am lu leen lié ba nga xamante ne bu doon ligue pro ba mu leer da nga signé contrat. xam ne ñu duñ dem ba boobaa yow mën nga ñëw ne da ngay mhm. mais comme ligue amateur nga ne mënoo ñëw di limité si ñoo xamante ne li leen liyee mooy loolu ko mhm. waaw li nga wax leer na xanaa ñu sànni si rek wax booy ñu gën a góorgóorlu comme joueur bi yof moom gars yi neen mental bi foorul dafa gaaw a découragé man li may wax chaque jour mooy nee naa koo xam te ne ngay football da ngay fréquenté si ñi xam te ne ñoom ñooy football mais di fréquenté ñoo xam te ne ñu football dañ lay découragé loo nga toog sa kër. waa defe naa ne émission bi mi ngi waaj a jeex ñu bàyyi la nga tàggatoo. su fekkee dafa am message boo xam te ne moom ngay moom ngay wax waa Yoff nga dugalaale ko si. bon waaw message bi yëpp bon message bi remerciement la. Mhm. ah ñaaxaal nit ñi owaal nit ñi. Mhm. nga baal ma ñu ngi may signaler ni ma pour ma wax la ci affaire finale bi. non loolu waa zone mhm. si surtout. du waa RSO. soo après. waaw mais man li may gën a def rek mooy ñaaxaal nit ñi. suñu jàpp équipe bi te dafa am benn difficulté boo xam ne ñun dañ ko fàtte mooy que ne instant bii nii euh, wàllu terrain bi tamit war nañ si wax ñu ñaan autorité ñu dimbali ñu mm-hmm. parce que yaa ngi wax léegi ñu ay max max à l'extérieur mm-hmm. mais même suñu match à domicile à l'extérieur mm-hmm. parce que c'est à Pikine ou à Guédiawaye te nga jógee yow dem Pikine di Guédiawaye di football maximum dix vingt yoo faa ñoo lay seetaan si boo demee ba min seen kanam di ngeen rus sax laaj paas parce que taxi la ñuy jël day métti si ñoom. Mhm. donc vraiment bu ñu mënoon dimbali si stade bi. parce que mhm. stade bi lu bari lu bari la daan combler. Mhm. si yow. bi si jëkk mooy di nga wax noonu pour ñu ñu ñëw. parce que ku dem entraînement ngoon di seetaan ku liggéey wàcc jaar. fekk gars yi réunion gars yi la kaay dugg wala gars nangam bu lu ñuy doxi am na ñoo xam ne presque noonu lañ inter intégré am na si ay joueurs yu nga xamante ne yow noonu lañ nekkee joueur peut-être dañ laa fréquenté terrain di tracer wala def nangam ba c'est vital pour équipe bi. Mm-hmm. ngir yàlla bon vraiment war nañ si mën a ñaan autorités yi bon gis nañ liggéey macha allah diis na trop. Mm-hmm. rëy na mm-hmm. mais ñu gën ñu si jàppale euh, lu mu gën a gaaw. mu nekk suñu avantage parce que doon na source de revenu boo xam ne euh, deux ans yi wala trois ans yi. li ñu maire bi jàppale. bu fekkoon mu yem wax pare. je pense que. xaw ma dinañ yéeg xaw ma duñ yéeg mhm. mais dinañ def championnat bu normal ba pare mhm. normalement war nañ dese xaalis mhm. parce que yoox bu fubalee a yow day am ay recette recette yoo xam ne au moins mën na couvrir ses dépenses la mbaaw nga war a a a fayaat transport oh. donc chaque match boo recevoir yow ab cent mille wala quatre vingt mille dina delloo ko si xam ne daawoo ko def ba oh. pare sa xaalis doo doo am engagement bon loolu mu doon lu ñu fàttewoon vraiment bëgg a ñaanaat laajaat autorité yi à travers monsieur le maire ministre ministre monsieur le ministre maire hmm. vraiment lu ñu gën a mën a jàppale si liggéey terrain bi mu baax dina gën a dox pour équipe pour hmm. pour pour pour équipe bi hmm. et le football Yoff yëpp bon dañ ma waxoon rek pour par rapport ak ma sànniwaale si final zone six bi waaw jàpp nañ ko le vingt cinq décembre le vingt cinq décembre bi moom lañ ko moom lañ ko jàpp ko mhm. incha allah mais dégg naa dafa am ñaari équipe yi dafa am kur door benn réserve ndax loolu mën nga ñu si sànni tuuti donte ni waa zone 6 ñoo war a leeral loolu. Euh, waaw bon match bi sur le terrain. Mhm. jee na mooy li concerne les spectateurs. Mhm. mooy match bi jeex na. Euh, match bu jeexee nag. dafa am lu xam ne dafa bokk sur euh, si si nu mu sax. dafa bokk si sila si administratif. Mhm. mooy amna na ay réserve. Mhm. am na ay évocation am na ay confirmation réserve. Mhm. comme niñ wa ni ñu noonu match bi jeex na première heure bi. Njare moo gagné Mbengen par série. non première heure bi. Ndenaat moo gagné tongor par série. tongor moo gagné. tongor moo gagné Ndenaat par série astafurla. si deuxième heure bi. Mbengen ki Njare moo gagné Mbengen par série. donc final bi ñu ngi ko jàpp entre euh, tongor ak Njare. mais kële euh, euh, denaat mm-hmm. dafa def réserve mm-hmm. dafa confirmer réserve bi mu defoon mm-hmm. donc tam confirmer réserve bi mu defoon léegi loolu ñii siy saytu ñu ngi koy saytu ba xam euh, fan la fan fan la cas administratif mujje mais sur le plan sportif liñ mën a jàpp loolu lañ mën a jàpp ko incha allah ñu bàyyi la nga tàggatoo bon wax sa dernier mot waaw bi rek bon vraiment mooy oo oote ñun oote oote rek la ñuy def parce que sport ku si xam na maintenant ñun bu ñu sañoon RS Yoff ñu dem ba dañu naan marché bi kii mooy dem marché bala kenn mu këkkale mooy dem. Mm-hmm. parce que voyage yëpp di ko def bon peut-être que ñuy liggéeyal comprendre nañu mais am nañu xam ne fi ñuy liggéey mën nañu fa am loolu ba duñ mën a déplacer mais bu ñëpp ñëwoon jàppasi. Mm-hmm. vraiment mën nañ ne bu kii defee trois voyages yi kii def deux voyages kii def nangam. Mm-hmm. day gën a oyof si ñëpp. comme niñ ko wax rek kii danañ ubbi bunta yi mais Euh, ñu liggéey parce que potentiel biñ biñ gis si si eh, Yoff mhm. bon équipe yi ko am Sénégal bariwul mhm. pour rappel bi ñu def euh, football professionnel bi ñu si dugg si dossier yëpp Ligue ba Ligue Ligue 1 ak Ligue 2 sur les vingt huit équipes mhm. RS Yoff moo doon troisième dossier deuxième donc ça veut dire que sur le plan potentiel am nañ lu xamante ne mu ngi fi ay euh, ressources bi ñëw jàppa si ñu dajale tout la tout la ressource humaine mhm. dajale ko pour jëm si kanam loolu rek moo fi des ko mhm. jërë ngeen waaw ñu ngi lay remercier bu baax a baax Tafsir euh, di rafetlu encore une fois sa disponibilité malgré que ni xat na mais fexe nga ba xajal ñu si lépp pour leeral ak aussi euh, bëgg football Yoff dem si kanam ñun loolu moo ñu tax a jóg football bi lañ fi waxtaane xool lan mooy jafe-jafe yi suñ jafe-jafe pare ñu xool lan moo koy saafara pour mën a dem ci kanam invité wu ñu fi kenn pour werante wala leen loo xam te ne luy yàq la luy defar rek lañ fi wax vraiment ñu ngi koy remercier bu baax di remercier ñi nga xam te ñoom ñoo ñuy seetaan à travers euh, Yoff Mbollo TV muy la seen locale tëje bi li ñuy tëj nag mooy encore une fois di suñu autorité ci terrain bi parce que ku wax boobu léegi nii rek ci terrain bi ngay wax defar nañ ko rafet na mais li si des mooy ñu àggali ko pour ñëpp man si jariñu sportif yëpp man see jariñu ñu ngi leen koy ñaan encore une fois di leen ko ñaan pour ngeen jàppale ñu si bu ko defee ñu ñëpp ñu fekk ko te tal ko jërë ngeen def